bismil khadimi barkeb aji maggi ji borom tuba rabbul wara hamdan wa sukkuran li seyxina wa wasilatina wa kulliyatina huna wa hana borom tuuba aji màgg ji wa ahmadahu ala baabihi wa baabina fiihi xurwatina maam cheikh ibrahima fall lamp bayyul muridin alhamdulillahi wa salla abada ala alladi bihi lana alhuda bada sayidina muhammadin wal ali wa sahbihi sawit nawalil wali barkeb lamp bayyul muridin noo ngi nuyuwaat baax baax waa daara jëpp ëtt waxtaane borom tuuba di leen nuyu di leen joxaat seen yéeguwaay ak seen àgguwaay bi nga amee ci tedd ki borom Touba di amaat mbégte lool nag ci liggéey bu màgg bu tedd bi tey nu fas yéene waxtaane murid bu mag ba al muridun kabir maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp babil muridin kii nii bëgg a waxtaane nag moom rek mat waxtaane moom rek a jara waxtaane muy Sidi Birahim mooy ki nga xam ne képp ku am ndimbal moo la dimbali mooy ki nga xam ne képp ku xettali ko moo la xettali mooy ki nga xam ne itam sunu texe àddina ak alaaxira ci moom la jaare ndax moo nu wan ki nga xam ne képp ku àgg ci moom texe àddina texe alaaxira muy maam Cheikh Ibra Lamp Baay Muridin moo tax sëñ Samba Jaara Mbay da ko wax ne ko Cheikh Ibra Fall raw nag maasam te déefu ko jot bambaa ko sempi mu raw yaaram bi naam faal moom nag dañuy ñëw ci nim ñu ak ni mu meloon ci sëriñ bi ak lenn ci ay waxam ak lenn ci ay jëfum nu xam ne maam Cheikh Ibra du du kenn te kenn du moom maam Cheikh ku baax ke da koo wóolu njëriñ ne ko Ibra Fall dama bëgg nga ñëw dem Touba siyaare ji sëriñ Mokhtar Penda Dieng ndax kat moom daana wax lu baax ci yow moo tax di wax lu baax ak di jëf lu baax ci maam Cheikh Ibra day xett murit safaan ba nag day alagu murit sëñ Basiru jërëjëf sikkar si am na solo lool maam Cheikh Ibra génn daan na xéexee ma Bamba ah sëñ Bamba waxantuñ woon lii sëñ Bamba waxantuñ woon jaale jaale la rek lañ lañ lañ waxante woon jaale rek lañ waxante woon ah doom naa ko def ngir ndigal li maam Cheikh Ibra jóge foofu day dem ndaam ca sëñ Abdourahmane loo wël wëllërim wa ndax ñoom ñaar dañoo fasante woon kóllëre lu yàgg danaa ci ñëw bim ñu ñëwee ci sëñ dam ne ko ko ki kat dama yebal Touba ngir ma siyaré ji sëriñ Maxtaar Penda Jeng ndax kat néna daana wax lu bax ci man sëñ dam sol aw dalam, sol mbubam and ak mam Cheikh Ibra kenn du mom biñ agsee ba ci dëkk bi ba agsi ci fi nga xamné ne borom Touba sun la laajee ci borom Touba ñëk julli ci ci ci Touba pàkk bi borom Touba ñëk julli ci Touba neel moy fi borom mam Cheikh Ibra fi la borom tubaay njëkk julli ci Touba maam Cheikh Ibra moo tax daana wax ne ah adoom fii fi àddina siñ Bamba mooy sama imam waaye ëllëg ma imamam loolu nag ay wax la ay wax la fekk bam ko bam mu fa jullee dara ko Ibra Faal rafaatale naa la barab bi mooy fii ñu ko def tey maam Cheikh Ibra dagg bantub dimb samp fa mooy bantam booba ba ñu agsi ci bant bi fekk am na garabug rey dond gu fa nekkoon garabug rey dond mooy garab yi laxasoon di dugalante moo dem dem mën a dem dem dem mën dem mu ne ko daam Abdourahman dégg li garab gi waxa suñ daam ci teggin ya ne ko faal man day waxe garab mënu ma ko dégg mu ko ah da baax rek waaye dégg nga ko mu ne ko daam da ngaa baax waaye dégg nga ko ne ko daam Abdourahman loo garab gi nee na fii mooy daara ji waaye fii mooy pénc ma ne ko daam nee na fi moy sama bambel man Ibra Fall waye fee seigne bamba di ne ne ko daama Abdourahmane lo ëllëg yomal xiyam ku seigne bamba di fa fayu yiw fi la lokay fayé gis nga ni mi tàmbali dimbilé Cheikh Ibra mom rek lañ war di jàngale daal di waxtaan ak seigne ma daal di siyaare seigne Maxtaar Penda Jeng bu juk daal di bëmm ne ko dama Abdourahmane dégg naa sëñ Ibrahima sëñ Ibrahima Saari Njaañ dugg si moom dawar wax diw wàcc na wala diw faatu na daan wax diw dugg si na moo tax yooyu Cheikh Ibra ko xam ah dégg na sëñ Ibrahima Sarr Njaañ dugg si na Cheikh Ibra moo tax fii ci Touba Fall ku ñuy wax sëñ Mbay Njaay dañoo dox ba ci yàgg sëñ bi maam Cheikh Ibra di wax ne Mbay Njaay mu ne ko Fall mu ne ko kan moo ci man fomoo mii ana yoonu bàyyi dem ba ñu tàmbalee ree mu ne doom ma fawuma faluwuma fawuma ma dama ne ana ku ci man fo moomu ndax day ngeen ko fo bay may jaay ne ko waaw faal daa doon mu ne nañ ah, na am sama kanam def ko may gis bay may jaay nee na ñu jiitu ma jël samay loxo teg ko ci teg ko ci mbaggi kenn sëgg nag jël sama bopp teg ci ndiggam li muy dem mën ko ana yoonu bàyyi dem mu naa ma mu mën a daq mu naa ma ma nga daqaar gëjë guy ga mu ne xéexee sëñ bamba ci sëñ bamba amut mu ne ana yoonu bàyyi dem ba mu ne ko mën a daqaar guy ga mu ne ci sëñ bamba ak noo yàgg ci xeli jaam ñi ñu ñuy waxantu te ñëwagun jamono ak noo yàgg ci xeli jaam ñi ñu doxaat tuuti mu ne bàyyi bàyyi mbay njaay ne ana yoonu bàyyi dem mu ne ko ma mu ne ko ma ma nga daqaar ji te guy ga mu ne ah, doom xanaa lii muri njëbbal doom xanaa lii muri njëbbal jël loxo teg ko ci mbaggi kenn gëm mu xamoo xamoo xamu fa xanaa doom lii muri njëbbal doom Cheikh ay waxam dafa xóot moom maam Cheikh Ibra moo tax itam ku baax ki ku masaa bëgg a dimbile ci maam Cheikh Ibra rek lay dimbile loolu loolu loolu loolu bari na am na ci koo xam ne ci kilifa yi ñi ko jege ci mbokk mu ngi ko baax ki am ci koo xam ne daa yéex a ñëw ku baax ki itam bëggal ko ndimbal waaye ma ngi koy jaare ci maam Cheikh Ibra mu woo ko bis na ko Ibra Fall ku baax ki Sëñ Tuubaa ne ko doo liggéeyal yàlla ci diw déglu bu baax Sëñ Tuubaa ibra fall do liggéeyal yalla ci diw mu ne ko mbàkke xanaa suñ ci amee ndigal mu ne ko ibra fall am nga ci ndigal maam cheikh ibra nee na dama bàyyi ba guddi ba fa yàgg yi waaj xotti ma dem ba ci buntu kër koo kii bof ma ngi koy bëgg dimbali cheikh ibra ponkal ya ko xam gaay yegg ci sa sa rek ci yalla def ak dina ñoo ñi ñoo wax ki maam cheikh ibrahim ñoo xam maam cheikh ñoko bek neena na bi fajar jotté mu genn neena na bi mu genné gis ma nee na mën daw mu ne ma yow nongale kay fu jëm xana ki ibra faal mu ko mëna kay mu ne ma yeen seen waagi na leen dofloo rek heure bi nes koy wa fa nga jëm mu ne ko dama yónne ci barab serigne sëriñ maxtaar jeng bi te boobu sëriñ jeng waccé lu mu ne ko yéen li may waxe tey gi nii sëñ Mata Penda xanaa ma faatu woon at sàngam mu ne ko waaw mu ne ko yéen yow do moom yow dof nga bëgg a dofaa lil ñëpp nag far ne ko léegi sa tànk ak sama tànk ba ci barabu sëñ Mata Penda Dieng ba xam loo fay def nee na ñoo ànd maam Cheikh Ibra nee na bi ma àggee ci barabu sëñ Mata Penda Dieng nee na damaa woo sëñ Mata Penda Dieng nee na bàmmeer bi xar maam Cheikh na sëñ Mata Penda Dieng jub mel na meloon ci neena waye ko ki day booba la noppé xam jëf yi dara mom may wax ak mom diko laaj muy tontu may wax ak mom banama ci noppé mu tudda ci bammel bammel merat na meron mané ñokk dug mu ne ma kon ndongali man ngeen li mu ne ko waaw mu ne ma sa tank ak sama tank ba ci borom tuba mu ko kooku imam Cheikh Ibrahim moko dimbali te noonu la jébbaloo moo tax mooy ndimbalul bu Cheikh ibrahim ndimbal la seigne touba da ci dimbalé motax borom tuba waxtu jot lan Cheikh ibrahim maam Cheikh Ibra di wane borom Tuubaa day wane borom Tuubaa moom maam Cheikh Ibra waaye nag maam Cheikh borom day jàngale maam loolu mat na bàyyi xel kon ci lay dimbalee ba tey ci ndimbalul maam Cheikh Ibra ni muy dimbalee jàmm ñi ñu mën a jariñu ci borom Tuubaa am na ci koo xam ne itam bokk na ci kilifa yoon wi waaye borom Tuubaa da ko mayen ci boppam kooku muy waxtaan ak moom ci waxtaan xóot di waxtaan ak moom ci alquran waaye koo kii kilifa la ku jege woon sëriñ bi ci saaxir am bis boo xam ne daa dégg ñu ne maam Cheikh Ibra daan ne babul muridin mu weddi ko ci ab xolam nag moom kilifa googee daan ne képp koo xam ne ñëpp ci moom lañ jëm kenn dong nu mën a nekkee buntum ñëpp wax ji waaw daan ne ku ñëpp jëm kenn dong nu mën a nekkee buntum ñëpp daal daal koy weddi xolam kilifa googa bis mu ñëw ci ku baax ki waaye xoolal ku baax ki ni muy ni muy ni muy jàngalee cheikh ibrahim nee na muy waxtaan ak moom di waxtaan ak moom ba ci yàgg sëñ bi ci ibrahima borom tuba ibrahima ay góor ibrahima de jàmbar la nee na kooku waaw wa taxasallaahu ibrahima xalilan a ah, ku yàlla bëgg ba takk lab xarit faw nga nekk jàmbar sëñ bi waxtaanaat ba ci yàgg daan na ci ibrahima ibrahima ay góor yi jàmbar mu ne ko waaw mbàkke ku yàlla bëgg ba takk lab xarit faw nga nekk jàmbar daane wa taxasallaahu ibrahima xalilan sëñ bi ne ko diw boobu ba léegi maa ngi naan ibrahima nga naan ma ibrahima xalilullah ne diw mu ne ko mu ne soo déggee ma ne ibrahima jàmbar la sama ibrahima fall mii laa wax dégg sama Ibrahima Fall mii laa wax ne ko ndax kat moom dama yor suma yëf borom tubaay wax ma jàpp ne kenn du ko gis mu fexe ba gis ko ma jàpp ne su ko gisee du ca dem mu fexe ba dem ca ma jàpp ne su ca demee du ko jël mu fexe ba jël ko ma jàpp ne su ko jëlee itam du ca mos mu fexe ba mos ca ma jàpp ne su ca mosee ni mu mel du ko wan kenn waaye moom day soxurut borom taa wax loolu waaye moom day Ibra Fall soxurut moo tax itam teg naa ko ci mbaq sànni ko foofu su fa doon xalambaay ba nay tukki nee na ko doo dégg dërëja moo tax maam Cheikh Ibra kenn du ko dab moo tax sëñ Moussa Ka dañ ko wax Mbay ci ni mu tijjee Cheikh Ibra Fall raw nag maasam te déefu ko jot bam baa ko sempi mu raw yaram bi nam Fall kooka itam xam ne def na njombe mu ne day tuubali maam Cheikh Ibra borom palman ba doxin wu jekk wa ñuulaay bu rafet ba ba ñuy weex tal ba di weex tal sew lool timi ñari ñu fi ak jangal ak jaral dem nak di tuubali mam cheikh ibra keur cheikh neena bi mi dem ak mam cheikh ibra ci xur wi digënté keur cheikh ak keur gu mag gi xuru na ci digënté bi fofu la ndox mi daan taare neena ma gis mam cheikh ibra ci biir xur wi mu jiitu mbooloo mi topp ci ma gis ñor parasol ba ak jekkaay ba waaye nee na gannaaw moom kilifa la te yor na sant wi nee na ma ni nee na ma gis maam Cheikh Ibrahima daal di adoom ah, kee may seen diw sàngam la ar ah, lem leen parasol bi nee na ñu lem parasol ba ca taalibe gi moom maam Cheikh Ibrahima nga xam ne képp nga ko am ci moom nga ko royee nee ñu lem ko nee ma ñew nee na nee na nee maam seexir bëgg sukk ma ne ko déet faal déet wax mu ko adom ah, man ibra fal day ma waré nan laaj naka la déggul man ibra fal ma waré nan laaj naka la ne ko ab xaj bi ci bokk sama ko gisee dana xam ne ci la suñu mu ko dana xam ne bokk ci mu ko fal ma ngi tuub rek mu ko mate ko kon no ni la doon dimbalé jaam ñi ci sëriñ bi waaye sëriñ bi itam di ko wane di wax ne maam Cheikh Ibra ku ñu a topp la ku ñu war a bëgg la ku ñu war a rag la ci ndimbalal maam Cheikh Ibra Fall moo tax daana yee mag ñi moom ko baax ki ci Cheikh Ibra sëriñ Mouhamadou Lamine Diop dagana wax na ne ki ko ki ma ko nettali itam sëriñ Mor Mbaye Cissé moo ko ko nettali daande amut jotaay bu nuy bokk ak maam Cheikh Ibra ci borom Tuubaa ba jug lu dul ne balaa jotaay ba jeex ku baax ke dana wax ne Ibra Fall du seen morom baa mu jëf jëfe juy wane ne maam Cheikh Ibra mii du seen moom Cheikh Mouhamadou Lamine daan ne am na bis boo xam ne maa doon yëkkati xasida sama Lamine ju dagana jàmbaar ju màgg ju tedd jooji Cheikh Mouhamadou Lamine nee na ma yëkkati xasida daane maam Cheikh Ibra nag saa su saa ñëw ci jotaay bi day xool fa mbooloo ma yem mu toog ci ginnaaw waaye daawul jege ku baax ki daawul jege ku baax ki nee na ma yëkkati xasida ku baax ki toog ne tuuti ma àgg ci ab baat boo xam ne miinuma ko ci xaraab walla jaaxal na ma seewoon lam itam a jàll nee na may baamu bayit wi di ko baamu rek sëriñ bi ne ma Mouhamadou Lamine xanaa foofii daa ajo defar nee na ma tekki ne maam Cheikh Ibrahima moo wadde fam ne déglu naa ko yet ci kàddu Cheikh Moussa Fam si Saliou daa jël ñaari loxo yi ràbbale ko daal di daal di rëkk Cheikh Mouhamadou Lamine Diop koy rëkk ne ko Mbàkke moom mii moo aajo defar moom mii moo aajo defar moom mii moo aajo defar yow sa mbir dara lépp jag moom mii moo aajo defar ko sëriñ Mouhamadou Lamine Diop da ngay nettali da ne man day fekkee defaru naa. ca moo aajoog defarug maam Cheikh Ibra jooj ji ci laa defaru waaw ca moo aajoog ma defarug maam Cheikh Ibra yëg naa ne ca laa defaroo waaye nag loolu ak defaroom moom sëñ Mamadou Lamine Diop Dagana moo ko yóbbee kon daan dimbali waaw di gindee gi sëñ Tuubaa am na ci ñoñ ñoo xam ne budul ko nag moom tey jii deesu leen dégg ci sëñ bi de deesu leen dégg am na ci koo xam ne daa sonaloon ku baax ki ci ak barkeellu maa ngi maam Cheikh Ibra ni muy dimbalee jàmm ñi rawatina ñi mu jamonoon teeloon ci sëriñ bi maam di laaj ku baax ki ak barkeellu saa su ko laajee sëriñ bi ne ko déglu ma ba bis ku baax ki toog di tombal mag ñi ak rëdd mbooloo bari lool muy buuxante di jege si di jege ku baax ki ne ko ana mu mu ne ko mbàkke day xanaa barkeelu ba rek laa lay fàttali sëriñ bi ne ko barkeelu day des ci wóotal dara maam da ngay indi dara jox na ko nu jox la dara kooka jug jugee jotaay ba dem ci marché ndumba job ba dem jënd ci ndima ye ndima lu weex daal di ñëw ci ñawkati sëñ bi sëñ bi daa amoon ay ñawkat biir këru njëriñ jox leen ko ñu ñaw ko comme ni ko sëñ bi daan ñëwee ci saaxir mu indi ko ci même jotaay bi bi mu ko indee boo xantewaat ba agsi ci bi jox ko ko ku baax yor ko ca loxo yi tedd ko tam tamal di waxtaan di tomb di tam-tamal nees tuuti mu yëkkati ko daal ne lii ko ko doon xayma ci njëg ñaata la wala jar nee na mag ngi di xayma ndimaleeg ñaw bi maam Cheikh itam mag ca ginnaaw mbooloo ma wadde fa mu ne ne ko mbàkke ba nga ko xanaa ba nga ko waaye ba nga ko laale amul njëg ba nga ko laale njëg moo tax dañ ko wadde kon noonu la sëriñ bi daan jàngalee maam Cheikh Ibra ci wetam waaye maam cheikh bi tam noo nii la daan wane borom tuba ci ci mbindee fi ni ñu war a jëriñoo ci moom moo tax bis ngir bëgg a dimbali jaam ñi ci cheikh ibra mu woolu sëriñ Moussa Ali Gueye bokk na ci gone njëriñ ni sëriñ me na leen wool leen ma Moussa ma mag ñu dem xool Moussa man jàpp ne moo fa ëpp at man ki maam Cheikh Ibrahima ni muy dimbilee jàmm ñu mu ñëw sëñ bi ne waxuma Moussa mii de Moussa sama moom laa wax ñu dem woowee sëñ Moussa xalima Gueye mu ñëw ku baax kenn waaw ndax moom moo dégg téere bi yàlla bi ci dëndam ku baax ki daal di fay jëfe-jëfe ku yéeme daal di yëkkati mbind moo xam ne ñaari fegg lañ ko tëje ne ko sottil ma ko tebul ko xool loolu rek lu doy waar la sottil ma ko te bul ko xool sëñ Moussa Alima Gueye ba ko ku baax kay jox loolu nag kenn néewu fa ñoom ñaar rek ñoo fa nekk sëñ Moussa Alima Gueye dem jël mbind ma sotti ko te xoolu ko xamul lu mu doon waaye sotti na ko te xoolu ko moom loolu nag kawteef la bi mu koy indi ndeke maam Cheikh Ibrahima mi ngi ci biir moo ko baax ki ci tawféex ja nee na ma yëg ku baax ki ne ma ak aqbil wala taqaf innaka minal aminin yaa Moussa nee na ma dugg si ma xool ko mu xool ma ku baax ki ne ma ndax defe nga ko na ma ko waxe woon ma ne ko waaw ne tuuti rek maam Cheikh Ibra daan ne ne ko Moussa mus nga di a ah, muusaa muus nga doom nooy mën a sottee mbind moo xam ne xooloo ko te yàqoo ci demoo ci benn baat sëñ waaye déglu sëñ Moussa sëñ Moussa dama ko waaye Fall jaaxal nga ma. ana noo mën a nettalee wax joo xam ne kenn nettalil wu ko te fekki ko ak noo xamee ne dara dëmm ci sëñ bi ne ko dama la koy jàngal rek Ibra Fall amul morom moo tax sëriñ bi génn na ci njaareem wax ne Ibrahima Fall day amul moroom ci Ibrahima Fall amul moroom mag ñi topp ca di wax mu ne di leen ko wax. dee leen wax ibrahima fa amul morom ndax kat kep ku ko dul wax ëllëg so demee ba fa sa borom da nga fekk mu mer dee leen wax amul morom motax tax war di yokk ndimbal la woon motax de nga sëñ Moussa Ka yaa jibb la sa xol fekkon nga gaa yey xurxural ñi lay setal ñi lay ngir mi ñu doxé ya fi xewal nuyo di ram yaanu tere wuyooti naam fekkoon nga ñuy jàng fa maam yow ngi muriitu du pexe yendoo liggéey fanaane root gaayee xaran banaa xureet baluy ginaar nekkul kuréet yaa ko xewal daawoo doxi ndimbal gi nga xam ne daana ko dimbalee ak nim daan jàngalee sëriñ bi bis ku baax kii dajale na fere yi ñepp mam Cheikh ibrahim nga ci won si lay xara nga ci won momit nam la ko waxe won rek ma won ci ginnaw mbolo ma muy waxtan ku bax ki di waxtan ci yonenti di waxtan ci khutbu yi ak gañu bax ni nes tuti ku bax ki mam Cheikh Ibra dugal kaddu ci bir waxi sëñ bi sëñ bi daan ne ana kuy rax sama wax ji sib lay xaar ne ko ah, Ibra fala mu ne ko laajal ma ko anal lu tax muy rax samay wax maam Cheikh Ibra ne ko laay Xaar ne sëñ Bamba ba mu ñu woowee ci subaak léegi mi ngi ñuy wax rek gaa ñu baax ñi ak ñi njëkkoon nee ko nanu wax boppam nee ko nanu wax boppam ndax ñi muy wax ñëpp soo leen génnee ci Ibra Fall ñu jeex tàkk te Ibra Fall du yëngu ñi muy tudd ñëpp soo leen génnee ci Ibra Fall ñu jeex tàkk ñoom te Ibra Fall du yëngu Cheikh Ibra foofu la ne woon noonu la doon dimbalee moo tax jamono yi ku baax ki waxee ne ndax booba daa wax ne nangam lii kat képp koo xam ne defet ne ko na nga topp sama baaraam bii dem feneen xam ne li nga doon wut moom doo ko fi am waxoon na ko ay jamono njëriñ loolu nag mbir la woon am na koo xam ne ku siiw la ci fere yi daal di def loola ba mu ko defee ku baax yëg ko ba mu ko yëgee daal di wax kooka ne ko toppal sama baram bi la ma waxoon rek kooka itam tegu ci baat daal di fab ay bagaasam di génn kër gi ndeysaan fu ñëpp di defaroo kon fa dàqi xuma fu jëm nee na mag ñi tam yërëm ko ndax ku toll suñ Tuubaa képp ku mu dàq nar ngaa torox ëdd àllaaxira waaye moom it ma nga yëramtaloo ndeysaan di tuuri xéewal di génn kër gu mag waaye bi muy génn dajeeg maam Cheikh génn dajeeg maam Cheikh di tuuri xéewal maam ne ko xéexee doom déglu ko ak këru mbégte gii nees fii génne nekk rongañ dégg nga këru mbégte génn nekk kër gi nga xam ne képp ku fi génn da ngaa war di bégtey muñ ndax xéewale kese fi ne mu ne ko fàll day sëñ Bamba daa waxoon ne nangam ku ko def toppal sama baaraam bii li nga doo ko fi am man nag damaa rëccale ba def ko mu ne ma toppal sama baaraam bi maam seen xëy doom baa bi mu ne la toppal sama baaraam bii tëggoo ci baat mu ne ko déedéet nam ma ko waxee noonu laa ko defee maam Cheikh Ibra jàppar ci loxol koo kii ku siiw la jàpp ci loxo bi daal di ñëwaat ba ci sëriñ bi ne ko mbàkke kii rek murit la ku bëgg a gis murit saati xool la jëmm ji ku sëñ Bamba di ci baat ku sëñ digel, digal teggo ci baat kon murita kooki non la ñëwaatee ci kër borom tuba ba ba man ci fere koku mam cheikh bi ko dimbali waye ko ko lang mom dara ko jar motax bis mas nañu indi ci kër gi te boba ku baax ki doon jàngale lépp lu yàqoo ci sama biir kër gii mënta defaroo fenn fu dul kër ibra fall waaye lépp lu kër ibra fall noppi naa noppi na defal ñu indi won ci joo xam dañ ko indoon ci kër ku bax ci waaye nak nek na fa ba melni mel ne daa yàqu nu top to bi ko ku bax yëgee ñu ne ah mbàkke da mel da am ayib kenn mënatu ko jëfandikoo mu ne yóbbu leen mako ko ibra faal ñu jël ci cere jëpp sol sol ko ci saaku yobul ko maam cheikh ibra booba booba mi ngi jangale wax ji mu wax ne lépp yàqoo këram kër mam cheikh ibra rek la ma def waye ba nu àggee wax ko ko ne ko ku baax ki waxuñ indi ko fi mu ne ci Sëñ Bamba déglu na muy rappelé waat wax ca moom day lu yàqoo biir këram sama kër rek lay defaroo ah waaye lu yàqoo fii defaroo fenn nee daa di wax fere ne ne daa di wut ay parla ñu ràbb ko jël cere ji euh, sotti ko ci ràcc ko ci naaj wi defar nañ ko daal xeeti defarin woo xam ne su ne la lii yàq woon rek na déedéet ba mu neexee jëfandikoo maam Cheikh Ibrahima defaat ko ci ay saako yu bees taq ñawaar ko ñawi rafet yan ko fere ni leen yóbbu li ngi seen Bàmba doom ba nu ko yóbbu ba nu ko bëcc mu ne ah Ibra Fall lu yàqoo sama biir kër gii kër Ibra lay defaroo kon dimbalul maam Cheikh Ibrahima Ngok moo tax ñëpp ko amee njukkal ñëpp ko di roy ci ndimbalam loolu ak xet moo tax xam ci moom dara it jafe ndax wax na ku ñu wax bàyyi Cheikh Diop kafe da koy mas di bés ba guddi maam Cheikh na ñokkit jug ne ko Cheikh Diop mu ne ko faal mu ne ko bindal ma gis suñu yaxin booba mi ngi jàngale ci xasida yi itam waaye mi ngi jàngale na diggante ak suñ tubaa lenn lu fi feeñ ci àddina amut bis bindal ma gis suñu yaxin bàyyi Cheikh Diop nee na ma bind ko mu ne ma ah du noonu ma bindaat ko mu ne ma du noonu ma bindaat ko mu ma Cheikh Diop noonu nee na bàyyi Cheikh Diop nee ma jug bëgg a dem jëri téere bi mu ne ma Cheikh Diop kaay ma ñëw mu ne ma toogal ak suuf màgg suuf mu ne ma dama leen a bëgg jàngal wane leen sama diggante sëñ Bamba daane ko maag sëñ Bamba na nga yëg ne sama diggante ak moom lenn lu fiy feeñ ci àddina amut lenn lu fi feeñ ci amut daane lu ngeen gis ci xéewal xam leen mi ngi bàyyi ko ci xasida yii Cheikh Diop doom déggal naa leen jàpp leen xasida Sëñ Bàmba yi waaw jàpp leen xasida yi kon Cheikh Ibrahima Ngok ku baax ki wooro na ko Daaru Salaam booba booba ñu ngi fi waaye booba sànc na mu ne ko Ibra Fall damaa soxla juróom-ñaar fukki xer juróom-ñaar fukki xer laa yittewoo bëgg nga wutal ma ko Ibra Fall maam Cheikh Ibra ne ma dugg àll Tuubaa bi déglu Cheikh Ibra ci pëstéef ba ak pas-pas ba ak bëggam gi suñ Tuubaa ak dogg ga ak lu suñ Tuubaa bëgg dana am ak nu man amee nee na mu dugg àll Tuubaa bi ñëw ba fii jullikaay yi bi nekk tey nee na ak dimm gu mag laa fi gis maam Cheikh nee na may xool dimb gi daandaa dimb gi xer yi siñ sëñ ma bëgg dana ko ci mën a na ma daal jël sama simiñ nee na tàmbale di gor di gor nestuut tuut asamaan di soppi ko xiin xiin wu ñuul kukku doom nee na waaye nag sama positif moom maa ngi gor rek di gor rek nes tuuti asamaan di suubu taw taw metti waaye maam Cheikh nee na ma ngay gor nee na muy taw may gor ba ndox mi bari bari boo xam ne jigg na dayo nee na ba àgg na foo xam ne ci bariwaay agsi na fii nii wax ab jumbax ci maam Cheikh Ibra ndox mi agsi na fa waaye nee na maa ngi gor xolul bu positif nee na ma nee na may may gor nees tuuti guddi la woon asamaan si daal di melax neena machine jang jani ñangoor ji nekkon ci kaw dimbu gi neena wacc dugg ci bi ndox mi lolou lay kum donon kurun maam cheikh da nga set nenam no def neena may gor nes tuti neena jani joji mo ne sama baram deuy bi man cheikh ibra neena way ma ngi gor koku ken du limale limaale nes tuti tuti mu tollanti bop ñaarel bi may gor nes tuti da nga ji yek ma daanoo moom maam Cheikh mu daano àgg suuf ndox mi bariwaay gi di ko ko puus di ko puus nee na guy texe gii tey moo ko téye ba jël nee na bi taw bi matee neena ma xool garab gi mu daano dimb gi garab gi daanoo ca pëstéef ba nee na ma ñëw tiim ko xar ko felet ko say ba mat matu say mat nee ma takk ko xam nga ne loolu kiman la loo tal ne dimb ko tol noonu waye neena ma yëkkati ko moom mam Cheikh neena jugut jugut dom mané ko ah, dom nak da nga xamul ki mala yoni so xamone ki mala yoni seigne Bamba da nga jug ñu dem ne ko dana la yobbu ba ci seigne Bamba ba meew ma ma namp won sama ndey seigne bu ndjay gennat fi deglu pastef ba neena may neena muy sikar moom mam Cheikh ba diko wër di sikar diko wër di sikar diko wër di sikar diko wër mais suuti nee na mu jakaftaloo say wi nee mu béréngu mu ne dom xam ma xam na pikir nako wa ma xam na pikir na say wi nee manako so ne mu jub nee mu yenu ko mom fi touba dox ba ca daru salam nee mu nako becc bëcc di tëdd ci wetu say wi de xaran xaran yu metti mom Cheikh Ibra xolal su borom touba ni ni jangale Cheikh Ibra mam Cheikh Ibra magni daw dugg ci ku ne ko ah, Ibra Fall day ñew nak say wo mag we mu ne anam mu ne man ci yotu say way xaran waaye xaranam yi metti na waaye xaranam yooyu day sedd moo ko te faatu moom Ibra Faal ku baax ki yor yor yor la mu yor génn génn ci néeg bi daal di ñëw waaxu ba tiim ko maam Seex di xaran xaran di métti sëñ laa ne ci Ibra Faal moo ne day bu ngeen xamoon xaranam yii day li mu doon da ngeen di tëdd di ko xaran la yéen waaw ah, loolu suñ taa bu ngeen xamoon xaranlam yii day da ngeen tëdd di ko xaranle moom Cheikh Ibra kon muy ndimbalul àddina bi muy ndimbalu àllaaxira moo tax bëgg ko rekk jaadu moo tax ku baax ki wóolu na ko fekk booba daa toog daan ana ko xam kër Cheikh am ku ñu ne ko mbakke xam naa ko mu ne ko laggal nga wal ma Ibra Fall kooka daw la ca xew lépp gudd na ndax ba mu koy jub ma bàgg ca bàgg mooy naan doom sa xetu Bamba moo may xeeñ xool la boobu boobu boobu maam boobu maam wax ju kawe jooju nee na ba ma àgg ca moom ne ko Fall day suñ Bamba lay woo mu def noonu moo ca baaxoo def daal di laaj satala gi ñu jox ko mu jàpp doxaat tuuti jàpp daal di laaj ab junni ñu jox ko ko mu jëw ko ci jibaan daal di dox bi mu ñëwee nag bu jib ku baax ki lu bari tànk yi dam mënut dox mu sëgg xóoral ku baax ki diraam diraam ba jub ko daal di jël junni bi daal koy teg daal di deltuwaat ginnaaw daal di sëgg boof ku baax ki jël ci banti xat yi daal di falan junni bi ba mu sori daal di koy Ibra Faal day ba ma lay woo li taxut ba ma lay lii taxut ne ko yàlla seen boroom mi nga xam ne moo sàkk asamaan sàkk suuf sàkk mbindeef ak lu am moom laa la bëgg a maraleel tey ba ngeen doon benn yéen ñaar yàlla laa la bëgg maraleel tey ba ngeen doon benn maam Cheikh Ibra jub ñu wax ko ko mu yenn loxo ya parce que ko ca kaw naan doom di kenn ak saa borom neex na kat ah doom di kenn ak saa borom neex na suñu bamb ak moo tax bis wool na ko ne ko rafetlu naa la kun fa yëkkun mu ne yaaram mbay sëñ Bamba fu fu mu sanc loolu ni mu daan jàngalee am na bis ku baax ki toog ak sëñ bu Buso ak sëriñ Moor Kumba Kan maam Cheikh Ibra ndawam jóge ci kër ga maam Cheikh Ibra yónni ko mu ñëw ci ku baax ki nees tuuti waxtu yu tàbbisi ku baax ki ne ndongal maam Cheikh Ibra na koy jekkil noonu yi ñu julli ji te ñëw kon képp kuy diingat waa kër maam Cheikh Ibra Fall ci ñàkk julli ak ñàkk woor da ngaa xamul rek ndax borom Tuubaa moom wax na ndongal maam Cheikh Ibra ne ko fekk maam Cheikh moo fa yónnee woon waxtu julli jot ku baax ki néew ko jóg ñu julli ji da ko wax ne ko jekkil noonu nii ñu julli ji te ñëw bu dul ko nag du ndigalam daan ko jugal ñu julli ji ñu dem julli ji ba yegsiwaat ku bax ki woro ndongali nes tuti señ mor kumba kan laajub laaj ne ko day da am lu ma bëgg a laaj sëñ mor kumba kan mu ne ko lu mu doon dama bëgg nga dama gis ndongal ibrafa li ak sagaram num mana def baraw busumi nak ab gis-gisam la xeyna lum gis la nongal ibra fa li anan fu ci lu mu japp baraw mbacke bu mi ndax ay wax la won ne ko nak dama bëgg nga dimbil ma ci yow mi xamé ay rongañ ci biru taw seigne touba koku mo ram mo mo mo mo, mo ragné ay rongañ ci biru taw ku mom xamoko ku dul mom xamoko lool seigne touba mo xamé ay rongañ ci biru taw ku dul señ xamoko waaw ay ay rongañ ci biru taw ku dul borom tuba mo nak dimbilima ci yow mi xamé ay rongañ ci biru taw mu ne ko waaw moom day bëgg ma lool kon suñ tubaab duñ koy bëgg lool roy yi bu rafaal kon maa ngi siy xëy koy roy ak jàng sama xasida yi kon xasida yi des koy jàng yooyu fi nekk bëgg Sëñ Tuubaa roy maam Cheikh Ibra jàng xasida yi daan na yoon wii ci la jaar waaye yooyu nag daa rëcc sax waaye yeneen la moom moo tax Cheikh Ibra mu morom daana wax ne bala ngeen mënoon a xam ne day bokkuma ci li yàlla bind awma ci morom li yàlla bind awma ci morom nee na ay armeel yoo xam ne dañ ci suul ba moom téeméeri at ñu tëj ko téeméeri at moom Cheikh nee na ñu tëj ko téeméeri at ba téeméeri at li mat nee na ñu sol li ña ca dafa ñëwoon ñëpp dajale yax ya ba mu nekk benn jal ñu woo man Ibra Fall mu ñëw yax gu ci nekk su ma ko yëkkatee naa wax kañ la faatu wax góor la woon wala jigéen wax ñaata at la amoon ak bis ak bis bi mu faatoo ma nga àjjana wala ma nga sawara ngeen xam ne bokkuma ci lu yàlla bind ëwma ci borom man Ibra Fall moo tax fi may wàccee lool nag mooy daam wax joo xam ne dama bëgg ngi koy wax lool bari na ci suñuy nopp waaye dama bëgg ñu taxaw ci settantal ko mooy sëriñ bi daa wóolu sëriñ Abdul Karim Touré mu baax moom yi nga xam ne Seydina Jibril alayhi salaam su daan ñëw ci ku baax ki melow Seydina Abdul Karim la daan yor ngir sopp gi mu ko sopp mu woolu ko waxtu yor-yor Seydina Abdul Karim Touré wetti li ci ku baax ki ak na mu ñàkkee woon jot ku baax ki nga xam ne amutoon jotu kenn nee na moom ku baax ki di waxtaan ak Seydina Abdul Karim Touré ci maam Cheikh Ibra seen ibnu karim tudde nee baat way li ci gëna yëm moy baat bu ko wax ki wax ci mam Cheikh nee na du ca dellu baat bu mu wax du ci delu waxtaan digënté yor yor ba bi ñuy nodd ku bax ki di waxtaan ci mam Cheikh Ibra te baat bu mu wax du ci dolli du ci delu di ko waxtaan ak seen ibnu karim Touré waye nee na bi ñu nodd nee dañu dañoo nodd ku bax ki nak ñokkat jug jël baram bu tedd boobu wax joji la bëgg taxaw ci ne ko tegg ci bëtu seen Abdul Karim Touré ne ko Abdul Karim mu ne ko mu ne ko loo mën gis ibra farawna kon lo mana te gis ku mën don ak lum reey dara je du mam cheikh ibra waaw borom da lo mana gis la wax ko mën gis neena na jël nob jël jël jël ba tek ko ca nobba wax nañ ne sax sey bu ne ko abdul karim lo mana te tee ibra kon ko déggati lum reey daraja je du mam cheikh ibrahima ne ko lula waye wax itam ibra farawna kon ku mën a nett daraja lu mu rëy rëy rëy du Cheikh Ibra laa wax kooku daa raw ku mën a doon te nit yi def dañ lay wax baa nga gis baa nga dégg kenn du la wax ku mel ne maam Cheikh Ibra doo gis ku mel ne maam Cheikh te doo ko dégg suñ kon sànni la ko fa nekk moom ku kenn kenn jëkk moo tax sëñ Mbàkke bu suma baax ma muftu nu yoonu murit ki ñépp doy loo sëñ Mbàkke Buso moom mii nga xam ne daa bëggoon maam Cheikh Ibra ba doy na waar loolu sax xëy na yeneen waxtaan lay laaj ku baax ki génn na bis jël loxo mu tedd boo bii teg ko ca bopp sëriñ Mbàkke Buso xoolal sëñ bi ñi muy seereloo maam Cheikh Ibra ne ko Mbàkke Buso seereel na Ibra Fall gërëm naa ko Mbàkke Buso day seereel na Ibra Fall naa ko Mbàkke Buso seere ni Ibra Fall gërëm naa ko sëñ Mbàkke mosu ne ko waa Mbàkke waa Mbàkke ana jën jëf la la maam Seex Ibra jëfal ba nga koy ngërëm ngërëm nu rëy lii dima ko seereel mu ne ko Mbàkke mosu Ibra Fall Ibra Fall sama jëmm ji ak jëmm yàlla la def nuy lenn wuutale wu ko Ibra Fall damaa teg yàlla teg moo tax Cheikh Ibrahima kon dañuy yemale foofu wàcc xam naa ne lañ bëggoon a yaatal sax ëpp na lii waaye kon dañuy yemale foofu rek xëy na ñu mel ne ñoom Baye Cheikh Ndawat yeneen murid yi ñoom ñoo nu gën a dégg Cheikh Ibra bu dàq ñu ci waxtaan foofu dañ ci barkeel rek ngir gëj gi ñu gëj def ndax gëj ci wóorut kon maam Cheikh daal na ngeen yëg ni mi ngi noonu kon daal dañ koy bëgg dana koy roy ndax ku baax ki wax na ne bëgg nañ Ibra Fall ngir li ma ko bëgg loolu danañ def tem ndax defal nañ itam sax waaye danañ ko jëfaat bëgg nañ Ibra Fall ngir li ma ko bëgg bàyyi ngeen bëgg Ibra Fall ngir ngir bëgg koo bëgg ngir bëgg ma bëgg kon nañuy bëgg Cheikh Ibra di ko roy di ko topp waaw di ko roy ci taalibe bi waaw mooy tax nu mën a jëriñu Sëñ Tuubaa bi rek biti jëriñu Sëñ Tuubaa zaahir mu baatinan kon waa aaxiru daxwaana xam ne jërëjëf